commission sociale bu Touba ci kanam mi ngi waajal bu baax a baax wàññi yi nga xam ne at mu jot da koy taxawal ci màggalug tubaa gi ci ñeenti xible yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi muy ci penk bi soowu bët saalum ak bët gànnaar ci ay sancaan ngir jàppale ñooñu nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee ci ay bernde yu yaatu ànd ak ñoom diirub màggal gi loolee nag commission sociale bu tubaa ci kanam yabaloon na ay ndaw yoo xam ne ñoo demoon sur le terrain amaloon visite ci mboolem yi nga xam ne ñoom lañ jot tànn ngir fas yéene faa def ay waañu màggal bokk na ci bërëb yi nga xam ne tànn nañ ko te dem fa muy Baxdaat ca sancaan ya bi ñu agsee mbooleem kilifa yi nga xam ni ñoo bokk ci commission sociale bu Touba ca kanam tey saytu bi la liggéey xool nañu bu baax a baax bërëb bi nga xam ni fi la ñu war a def waañu màggal gi ak lépp loo xam ne laaj na ko waxtaan ci it ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci quartier bi ci yéen ji nga xam ne moom la am ci ñii nga xam ne ñoom ñoo fi dëkkee bi fa délégation bi bàyyee ko dem nañu ci penku dëkk bi ci quartier Mbadianeen ca fii it bokk ci bërëb yi nga xam ne tànn nañ ko ngir fas yéene fee def waa ñu màggal ci ni nga xam ne noonu lañ ko defee ci at yi weesu liggéey bi nag dafa laaj saytu ak waajal moom moo tax délégation yi wàcc sur le terrain nemmeeku mbooleem bërëb yi nga xam ne moom lañ fas yéene taxawal waañ yooyu ginnaaw bi dem nañ ci soowu dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba ci quartier Taïbatou Khoura fa féeteeg sancaan ya file it mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo bokk ci commission sociale bu Touba ca kanam ak kilifa ñu àndaloon liggéey bi saytu nañu barab bi ba xam fi nga xam ne fi la ñu war a taxawal waa ñu màggal gile xool nañu it lépp loo xam ne moo leen mën a may ci liggéey bi ñu mën cee am ndam te it leen du ko gàllankoor ci bërëb bi kilifa yi dem nañu it ci quartier Daarul Xaddim nekkee ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba ca sancaan ya file it fas nañ fi yéene taxawal waa ñu màggal ci ni nga xam ne noonu lañ ko fas ni amalee ci yeneen quartier yi nga xam ne moom lañ jotee visité ci bërëb bi mboolem kilifa yi saytu nañu lépp loo xam ne moom moo jëm ci naka lañ fas yéene taxawalee waañ wi ci fi nga xam ne moom moo di ci daarul xaddim commission sociale bu Touba ca kanam leeral nañu mboolem waañ yi li nga xam ne moom lañ fa fas yéene def mu jëm ci wàllu bernde yi commission sociale bu tubaa ca kanam nag lépp loo xam ne moom lay def ci waañ yi yaakaaru ko fenn fu dul ci mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi képp ku ci bëgg a sasoo ab waañ ci gàddul commission sociale bu Touba ca kanam ci lépp loo xam ne moom la waroon def ci yooyu le wala képp ku ci bëgg a barkeelu cohésion sociale bu Touba ca kanam ci seen numéro bi am na Orange Money ak Wave muy 77 914 26 68 wala numéro compte banque bi affiché ay wa leen murit ñëw leen ànd commission sociale bu Touba kanam jaamu yàlla ci jaami yàlla yi